fidèles téléspectateurs de la DTV waxtu seen Emission question de l'heure jot 5e delluwaat rek di leen jaajëfal ci programme chaîne, chaîne de télévision la DTV rawatina nag seen émission question de l'heure Ninka Amalanak amalee nag àllarba bu nekk di waxtaane lépp loo xam la xam ngeen ni ci ay bés direction du département de l'élevage Bundakar, Dakar ñoom ñoo Tolnikini. xabaar bi jàpp lu ñu toll ni que ni juróom ak Yo ni en circulation au niveau donc de la capitale et même euh, au niveau des les autres localités du du Sénégal muy xibar bo xamante ni ba béré ba légui nak juróon na njàqare ñi nga xamante ni consommateurs yi waye tamit yak na liggéey lu bare bari ci ñi nga xamante ni ñoo ci yëngatu loolu nag moo waral ñu amal bi la émission tay ngir nar a waxtaane lépp loo xamante ni lu joggé ci xibaar bobu la ñu am mbégte nag di dalal ki nga xamante ni mooy Doudou Fall di président association des professionnels de la viande et du bétail nek fële nga xamante ni mooy Sogas ñu ngi leen nuyu monsieur Fall waaw ñu ngi leen di fay bu quoi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci invitation bi ngeen ñëw

ci ay bëss bi ñu génn ba légui mi ngi law nak di jural njàqare ñi nga xamanteni war ñu yëngatu ci walu wi waye tamit jural njàqale askan wi nga xamanteni tay ji ñu baree bari tay ji dem nañ ci ba tit ci nar lañ dafa def ba jëfëndiko li nga xamanteni lu jëm ci ndawal la ñun nak jël nañ suñu micro doxantu ba fa li nga xamanteni moy daral bu suti ba jox kaddu ñi nga xamanteni ñoo ci yëngatu dañuy dem rek du côté de la régie teewlu élément bi affaire yap mbam bi affaire clandestine bi clandestine bi mom presque 100 la fi lu fi am la mais yap mbam bi mom ci ñun ci suñu biir liggéey ak ci liñ ne yàpp euh, seer euh, kalaan mbaam amul si seeraas am gis nu ko mooy daral daral tam seeraas gis nañ ko seeraas mais gisuñ ko seeraas tam fu ñu koy jaayee fii ci yàpp seeraas fii ci seeraas am na riimoor bi am lu mu ci wax loo xam ne yaakaar naa dañ koy yokk mais am na demewul woon que yaakaar naa yàpp mbaam kenn ñemu koo jël di ko dagat di ko jaay fii nit amul fii ñun ci seeraas gis guma ko man fii laay liggéey yàgg naa fi waaw li ci des nag li ciy wax bari na liñ ci wax bari na yàq liggéey bi ci la bokk parce que fekk yow ci liggéey bi li ngay liggéey yow ci ñi koy wax gisoo ci kenn koo xam ne ci dara lii lay liggéey te gisoo ci kenn koo xam ne day interpellé ñëw fii di laaj waa dara lii ak lii ak nan la ak seen gàtt gi nii lay demee mbaa seen nay nii lay demee mbaa seen ndax yéenay jaay mbaam yi ndax yéenay jaay fas yi ndax yéenay jaay xar ñun ay xar la ñuy jaay ay nag la ñuy jaay buus yi fii jënd fii la jënd terrasse bu ñu jëndee fii la ñuy dugal même bu doon ay clandestin nekkul ay clandestin yoo xam ne yu tilim la. tuuma bi yëpp nag ñu waa Sogas ñoo génne information boobu tuuma bi ñu ko génnee ñu ngi ko génne ci marché yi nga xam ne nii comme ñun ñii ak yeneen marché yi nga ñoo nekk biir Dakar tom marché yi fi nekk yëpp seen yap seeraas lañ koy jëlee bon am na bi ñuy doog bi ñuy bi fi bi ñuy doog commencé ñun mbaam ay ñaar mbala benn bu ëpp bëree ba bëri ñett la doon seeraas doon liggéey to yàpp boobu pour pour pour lañ waxoon quoi ci seen wax mais biñ demee ba certain moment fan paas ni nii li dugg mbaam seeraas jéggi na day waa jéggi na day wax gis nga fii fii nii fii nii sans place fi laa toog mbaam yi fee lañ jóg fu taraay bi romb fii di dem seeraas biñ to biñ toogee toog rek sama xarit bi ne ma gis nga lii nii fi muy mujj du baax ci ñun te mujjum mujjum tuuma bi suñu kaw lay jëm yaa ngi dégg tey jii buñ fekkoon ne tey jii nangu nañ tay fu fekkoon mën nañoo may ñu dugg tey jii moo woon la conteneur yépp parce que luma 300 mbam dañ ko duggal fi seeraas def ko ci ay conteneur employé ñoo koy rey ko duggal ci conteneur yi li di am fit fit bu amé rek bir seeraas la mais marché amul marché bu accepté ay responsable parce que 80 personnes 10 personnes rek buñ buñ dajaloo ci marché mën ta ñak 5 yo xamné ni ay ay ay homme d'honneur lañ ci biir ñooñu am na loo xam ne duñ nangu ko ngay saltel suñ marché parce que tey suñ suñ der dafa yàqu bu njëkk loo doon dégg ma serrage agression agression agression biñ demee ba affaire bu soof ñun ñoo amul benn homme de bu ñëw fii jëlal ñu suñu matuwaay ñu ñëw jëlal suñu propre matuwaay loo fi ku fi jël kalpe jàmbur mbala nga jël fi yëfu jàmbur ñu ñooy am suñu fu la bopp topp la ba fu mu ngeen jàpp la indi la nangu ko ba loolu ñu éliminer ko fii parce que fii mooy suñu tranga am na loo xam ne ñun duñ ko nangu tuuma boobu seeraas ñoo ko génne loolu mbaam bi ñuy wax seeraas la nekk ñoom ñooy rey ñoom ñooy mbaam ñoom ñoo ko kii boo waxee ñu ne ay chinois dañ ko si ay chinois ñoo ko exploité. ñun bu ñuy doog ñëw Ndakaaru am na ay temps da nga doon dugg bi seeraas gis ñu rey ñetti mbaam wala ñetti fos yooyu to fos yoo xamante ne dañuy damm sax lay doon instant yooyu nee nañu parce que an lañ ko doon yobu mais dañoo dem ba si biir. Eh, lu daan romb fi ci ay mbaam deg bëccëg di duggu bi Seras defé na ne li park an mënu ko lek légui nak ciow li bari na ñu arrêté wa Seras arrêté ba paré légui ñuy jaay yap ci territoire bi mom lañu tek tor bobu né ñom ñoy jaay yap mbam to defé na né ku fi gis yap mbam ci ñun ñi nga ay doomu séré lañu ku ci gis yap mbam wala yap fos bi Seras nga ko gisé territoire bi ba mu jeex ku ya pufos, wala ya pumbam bi mbaam bii seeraas nga ko gisee dangay xool fii trottoir bi est-ce ku ñemee teel di ko amna amu vide? de ya yàpp mbaam bu fi amee seeraas la mun a jóge dem na nag ba coow li bari na ñuy naan ñi Technopole xam nga suñu client yaa ngi woote di naan mbaa yéen bokku leen ci loolu ñun xam nañu suñu lu ñu ñun xam nañ ko ay doomu séeréer lañu mbaam luñ ci xam saret dem rooti ndox andi loolu bu ngatakem nga dembe, bude dem béy fos ñun doomu séeréer loolu la ñu xam si mbaam waaye teral mbaam rendi ko déedéet doomu séeréer buy wër mbaam bu timis sax mu dem ñibbi dootoo ko wër ndaxam li nekk ci mbaam nga ne gis naa mbaam buy am vingt doom ñu ne la booy di nga gudd fan ñun séeréer loolu la ñu xam si mbaam waaye du question rey mbaam jaay ko ay doomi aadama ñun loolu taxu ñoo jog ñun yàpp nag la ñu xam. ñu leen di jaajëfal Doudou. Coow laa ngoog. coow li kañ. je pense bien que ne ñi ngi phase tournante bi Ali Diouf mi di wax léegi ah, ku xool xam ne am aspect hygiène bu am bu dee la ngi wéeru ci yàpp bu nit lekk di wax nga xam ne lii problème la moom mi di wax li phénomène abattoir bi ko créé 1956 nañ ko démarré état a jox ko commune bi commune dem mu créé société de gestion des abattoirs du Sénégal donc vétérinaire diko trente ans mënul dem état bi privatiser ko ci lettre privatisation conseil des ministres m'a arrêté depuis 1995 danañu impliquer les professionnels dans la gestion des abattoirs bi créé pas actionnaires. mi actionnaire la actionnaire la nous créons société parce qu'on était minoritaire ñu nekk les deuxième actionnaire man mi di wax ak yow administrateur là ci société de gestion des abattoirs néanmoins que j'ai 58 ans d'expérience dans la boucherie ite la guéné professeur Seydi di jangal vétérinaire yi ba may nekk ITA mu ngi may dégg mo don assurance Sovix ma guéné ak samay diplôme yapp nek sama wetu papa di liggéey

loolu la abattoir di tekki donc bu ñu tegalee infrastructure bu ñuy reyee donc ko war a rey da nga war a ñëw rey foofu parce que vétérinaire bi contrôle yàpp bi ma nga fa euh, aspect hygiénique bi ñuy wax lépp ma nga fa mais donc la ñuy def ci biti kooku incompré wul ñuy liggéey ci biir abattoir bi mu nekk benn facteur beneen facteur bi mbaam bi ñuy wax nee naa ne depuis ba léegi dafa am abattoir bu ñuy reyee mbaam

ministère environnement moo yore seen budget parce que ñoo leen yoré ñoo leen di dundal am na ci ay cheviards yo xamni mbam rek na ni rey wala fas dem di yobbu xam la gal ci euh, ci parc yi mais donc lolu ay contrat yu ñu gagné la mais li ñu doon ray ci mbam mu nañu xayma 11 wala 12 mbam par semaine mais mu am benen phénomène bu ñew moy phénomène chinois Burkina man mi wax ak yow

chinois bi ñëw di jënd mbaam bi cent cinquante mille deux cent mille c'est donc opportunité bu ubbeeku la te nit euh, nit ñi amuñu capacité de maîtrise danaan mbaam mu ngi jël de cent mille cent cinquante mille dara mbaam mu ngi jël quarante mille ñu dem di jënd di rey di yóbbul chinois bon abattoir bi mission service public lay dox bi chinois yi ñëwee jaar nañ fan war jaar sogas recevoir leen ma dafa fekkoon sax ma tukki dem euh, Niger bi ma ñëwee gis mbaam yi dama woo président directeur général bi ne ko phénomène

y avait presque lu ma sept cent et quelque mbaam ñu génne leen ci biti ñu nekk ci raay bi <coughs> xam na ñu ni chinois yi leen seen mbaam yi léegi bi ñu bëggee génne conteneur yi ba fa nekk def mbaam man maa njëkk opposé wu ne du génn parce que comme que arrêté nañu exportation bi léegi fan nañ koy dugal bu ñu ko génne mais day delluwaat ci population bi ñu téye ko ñu signé convention ak Parc Hann ak Bandia mu ngeen vérifier Nous avons fait bi par contre goutte muy dem foofu ñoom ba prélèvement parce que nous avons ay chambre froide loolu mooy am kat mooy bu ñu avons ay chambre froide nous koy information y a ngeen vérifier à la source si c'est avéré ou pas parce que nous duñu waxantu ay mais le problème moi c'est un problème phénomène chinois temb rek ñëpp ngi dégg France Inter ñox Mali ña ngay rey ah, baal euh, waaw àddina ñëpp dégg nañ ko d'accord Doudou ah, voilà li ma ko doon waxee légui rek suñu ñettelu invité du président association de défense des intérêts communs des consommateurs des ASDIC di Djibi Ndiaye egg na ci plateau bi Djibi ñu ngi lay nuyu ma leen di fay te di jégalu aussi ci retard bi euh loo xam ni euh, Sénégal euh, déplacé wu metti na amoutage metti na waxtu bo jóg di nga am problème 20h 10 ba tey ñu si bi waaye di jégalu nag ndaxte wax dëgg yàlla moom amul excuse ndaxte réew aussi boo koy defar da ngay wane le bon exemple donc ñu ngi jégalu ci euh, euh, ci askan bi di jégalu aussi ñi nga xam ne fet maa ngi bokk ak ñoom jotaay di nuyu nag aussi di nuyu aussi ñi nga xam ne fekk naa leen fi te di nuyu aussi askan bi te euh, di wax fa jaajëf merci voilà ñu lay jaajëfal euh, euh, Pape Amar Diop yow ngay président déjà ci fi nga xamante ni foofu la jotoon a dem fi ñu gis reportage président association des des éleveurs maanaam ñëpp ñu yëngu ci ci wàll wi te nekk fële nga xamante ni mooy daral bu Sotiba xew-xew bi mu amee bi ngeen déggee coow li yéen naka ngeen ko naka ngeen ko dundee euh, jaaxle nañu trop te def nañu tiis lool te aussi di jéggulu Sénégal gépp Sénégal gépp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñu leen di jéggalu te di leen ñaanal fanu gudd ak wér euh, juumte mu ne day am ci àddina waaye kilifa du gaaw di wax xale mën na wax nga ne xale la waaye kilifa bala wax da ko war a seet mbaam naka jëkk dañ ko daan rey sokaas duudu wax na ko léegi waaye rey bi doon rey ak bi bokkul. lu leen wutale. bon bii ku andi ay milliardam la ku andi ay milliardam la du seen waaye ñoo dem ba ci àll bi jënd mbaam yi andi ko. am na ko kan la am na ku jëndi mbaam ci àll bi ñëw jaay ko seen waaye koo kan la euh, nañu bàyyi nëpp nëppal nëpp nëppal amul solo soo gisee ministère va tere tere mbaam yi. dafa dem ba affaire ba ëpp dayoo ndax dem nañu ba euh, nag yi ñu rëy sax li ñuy rëy ci mbaam moo ko ëpp. fa mujj da bétuwaat dafa fees ak mbaam ba ci raay bi fees mbaam te euh, mbaam yi xam nañu ko ko jëndoon xam nañ ko fu mu fi mu ñëw ak ko jëndi woon ak ñun seen waaye ci àll bi di jëndi mbaam ko jëndi woon andiwaat andi ko bi tax ministre bi arrêté mbaam xam na tax ñu arrêté mbaam daawuñu jënd dañuy dem rek buub mbaam yi rek ñëw andi rey. daaw ñu jën dañuy yegg rek buub mbaa mi ñëw lim ñu yàqal fu mu ne nii ci alal ay milliards lañ ñu yàqal ñun wóor na duut faal mi bétuwaar mënatoo faa jaay yàpp ko wax mu ne yàpp yàpp mbaam la lu tax kilifa bu fekkee day wax day xam li muy wax da ngay jël yàpp mbaam bi ak yàpp nag bi di ko daggat di ko jaxase di ko jaay ñan ñoo koy jaay marché yi ñenn ñoo koy jaay muy caa caaya forox yi ñoo koy jaay muy jigéen ñi jaay xaw ma lan loolu loolu loolu mu wax moom dafa mel ne da ko xam loolu day day day yàq xelu nit te man wér na ma ne wér yàlla ne wëral marché yëpp doo fa gis yàpp mbaam wëral yàpp mbaam doo ko fa gis amul benn du tilleen du feneen du feneen fu ñu mën a dem doo fekk yàpp mbaam ci kaabal bi xam nga boo waxee loolu da ngay yàq xelu nit ñi fu ne kenn bëgg ma ne la fan yi même frigo ba fële yàpp yi bari yàqu na fa ndax gaa yi nangutu ñoo jënd yàpp xam nga lu ko waral dafa am ñoom seen xel ñoo ko bëggul tey Sénégal am na lu fi nekk loo xam ne léegi nag am na ñoo xam ne du ñu lekk yàpp te rendi ko ñoo koy rendil seen bopp ñu lekkal ko seen bopp waaye nga nga rey nag wala nga rey xar di leen ko jaay nii ñu taxaw xool ko di ko jënd amul bari na bari na ñu ko dul def kon nag boo duggee réew Sénégal nga xam ne ñun ñëpp ay juddit la nga ne yàpp mbaam maa ngi ci marché yi ah waay waay euh, euh, euh, ah dëkk bi tas na. way way way këpp gaal la kenn ko way ci booru géej. déedéet boo demee daral tey xar yi dara doxut depuis keroog a ngi jaayuñu dara noonu dara dara dara dara man dama waaw te gis nga dafa am lu may suivre toujours kiy wax ci affaire yàpp xamul dara ci yàpp. boo tegoon fi yàpp bëy ak yàpp xar wala yàpp nag barke rasulullah ñuy mapp mappi ñëpp ñëw buñ ko xoolee duñu xam yàpp bëy la wala yàpp xar wala yàpp nag xamuñu ci dara dañuy wax rek nit nag bu fekkee ne dangay dangay da ngay wax da ngay xam ci li ngay wax lan la ñu ñu ci juddoo yaroo ci ñu ngénte ñu ci ñu xam ko ñun xam nañu yàpp mooy lan waloolu yàpp mooy lan fi ma féete di Sokaas kii moo tax ma am fa seize action ginnaaw yàlla moo fa dugal mooy mi ba fa nekkee ak léegi nag ñun xamee lu ko dul lu baax ak jàpp ñaamuram di liggéey liggéeyam te xam na wax moom du wax pour intérêt boppam day wax pour intérêt peuple bi ñi nga dégg na ñuy wax ci mbaam yi ñu ci bari dañuy xëcc seen intérêt bopp te seen intérêt bopp taxul ñu fee ñëw fi tax ñu ñëw mooy intérêt peuple bi d' accord waaw léegi euh, Abdallah yow ngay ngay boucher nekk fële nga xamante ni mooy Sogas dèjà xabaar bi euh, doyen mi ngi koy wax léegi tey ji manque à bi jafe-jafe yi nga xamante ni jot nañ ko am léegi tey ji ngir jaay li nga xamante ni mu jëm ci wàllu yàpp la yéen noo leen ko dundee yéen ñi nga xam ne yéen nekk tey ji ci xol li nga xamante ni mooy wàllu abatage wàllu njaay ak jënd ci li lii di ndawal gi ñuy jaay ci biir dëkk bi ah, waaw waaw di santaat rek euh, di jégalu yi am jamono toll te di la fàttali ne man euh, nekkuma Sokaas boucher détaillant la bu nekk ci marché HLM 5 doon coordinateur <coughs> association boucher yi nga xam ne ñoo nekk ci Ndakaaru ëmb ñaar fukki marché yi ak juróom-ñett président bi di Ousmane Fall ci tur woowu laa fi ñëwee euh, mu mel ni nag dama fay fekk samay grand frère muy Pape Diop di dudu Fall nga xamé ni wax deug yalla dañu ñëw dañu fekk suñu wajur yi andé won liggéey bi nekk ci biir Sokaas booba séras la liggéey bi nak japp na né li xew jamono juñ tollu mo jara a leeral. loolu la ñu bi plateau. waaw loolu moo jar a du problème moom mbaam a ngi jeex ci all bi du mborom mbaam nga ngi jeex Sénégal dédé lan la problème bi problem bi moy li jaxal askan wi parce que euh, pap wax na ko léegi nee kilifa boy wax da ngay set li ngay wax moy lan ñun dañu jek jek rek mbam ken du ne ken du wax mukk ne ci ñun duñ ko wax ndax ñu ko tàmbali 1970 lañ tambalé ray mbam bir Seras. 56. 56 lañ tap lañ 56. yàgg li nga xamnel aussi mo dugg mo dugg socas entre 2015 bi 1er janvier ba décembre ñu ngue ñu ngue ñu ngue ñu ngue ñu vous archives yi mu ci mu wir comprendre lu bax liguey nign fa 1000 1500 1000 de 1500 et quelque 1500 et quelques. quelque 1500 et quelque liguey nign ko bi socas legui nak li problème moy bu yàlla dimbalee tey euh, duudu muy sunu mag yàlla may ko lii mu ko may ci liggéey bi ñu ñaan yàlla yàlla yokk cëram yokk wéram ndax buñ demee ba Boucher mën a toog ci plateau di wax moom la moo ñu intégré ci loolu waaye nag tey dañoo toll ci position boo xam dafa nekk actionnaire la biir Sogas biir am naa ci action comprendre nga baax moom mii ci conseil administration bi ci la bokk kon bu nu toogee fii mën nañu fee toogal ñun waaye mën na faa toogal sokaas kon day yomb liggéey bi leer maanaam dafa am loo xam ne mbaam kenn newul na mbaam yàgg nañ ko fee rey ñii rey ñii nëbbatu di rey ci àll bi ñooñ kenn waxu leen ay wéyu lañu ñu jàpp fan yi ci bin bi côté dara technopole ak ñu dem ñooñu ay wéyu jàppaguñ ci kenn bu mu génnee carte professionnelle ñu xam ne kii boucher la carte professionnelle ñu xam ne ne kii boucher la ñu génne carte professionnelle ñu xam ne ne kii chevillard la amul phénomène bi nga xam ne moom moo am ci kilifa gi leen déggee mu wax ko arrêté bi bi mu bind mi ngi ko bind janvier ministre bi mais loolu rey mbaam mi jiitu na loolu bu bu bu fekkee ne tey dañoo toog ba mu yàgg mu jékki-jékki ne mbaam yàpp mbaam kat mi ngi mi ngi ci dëkk bi mi ngi ci marché bi ñuy jaay ñu ne déeta waaye mu ne ñu ngi koy jaaye waaye ñu ngi koy jaayee kilo 600 francs kon kooku am na lu mu xam ñun man de xawma ko 28 mars yi amu ci te mosuñu fay jàpp luy nuru lu mel noonu. quant à nag sunu turu ci association bi nga xam ne moom lañu yor di ko doxal moom xam na ne clandestin am na nu meloon ci biir dëkk bi waaye diir biñ ci taxawee taxawal sunu sunu association ñoo ngi liggéey ak. délégué yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci marché bi am numéro yoo xam ne clandestin ku koy def dana lay ciblé la kon ñun ànduñ ci loolu waaye lii problème bi ki taxaw ne amna yap yàpp mbaam bu nekk ci marché bu nekk ci marché bi kilo six cent lañ koy jaayee benn ci lañ jug ñun as sunu association bu se Dakar yi def sunu conférence de presse kok koog inspecteur régional bu Dakar ndax mom la liggé liggéey. départemental bu départemental bu Dakar monsieur Niang Diallo ñu diko sante bu baax ci taxawayam ñu def ñu ñu def conférence de presse ba paré wax ci tambali coow li jóg coow li tàmbali mais coow li tàmbaliwul deux 2015 mbam bi tambalu mbam bi bimu tambalé débordé bay bu 2015 bi ci 2015 bi rek man xol archive kon. bu ñu toogee ba waxtu wi kilifa gu mag gi nga xam ne moo yilif sokaas gépp taxaw ne mbaam yaa ngi fi te kenn xamul fenn fu ñuy reyee mbaam fu biir sokaas chinois yi ñuy wax fekkagun benn chinois taxaw ci benn luuma ci àll bi laay dem di jënd di jënd mbaam amagul gisagun benn chinois bu dugg biir sokaas di contrôler mbaam yi ngi rey foofu déedéet danoo ñëw ci voie légale bi la jaar dugg bi sa ko sokaas wax ak kilifa gi ñu war a waxal ñu teg leen ci yoon jël seen personnel di liggéey liggéey boobu. personnel lu sokaas. non du personnel dañoo jël beneen personnel lañ jël bu bokkut ak biir personnel personnel lu sokaas bi doo dugg sokaas ba fekk fa kenn koo xam ne embossement nga fa ko taxaw ne la doon la ci liggéey ci lii amul. waaw kon bu ñu demee ba jëmm soxla nit soxla ko ñëw ci ñoom wax ak ñoom yëkkati si alal ju mat sëkk. ay million tek sen loxo jël conteneur am jox len war ko war nañ ko mën sécuriser mo xam ndawal la dañ koy sanni wala dañ koy lak mba dañ ko tour war nañu sécuriser lolu ba lepp lo xam ne euh, day jenn war nañ ko topp ba mu kenn port bi nak amu ci ah d'abord conteneur yi nga seen ñu téye bi lu ko jappé dafa am lu ko waral. lan moko waral euh parce que ñun ñu ngi ci liggéey. ñu ngi ci liggéey boobu ba léegi bi ñu téye conteneur yi dañuy sa dañoo saisir Vietnam chinois yi lañ laaj yan condition la affaire bii duggee seen dëkk répondre chinois bi nga xam ne moo jiite woon loolu ñu woo ko nanguwut a génnee kayit ñu saisir ko ki ko téye kilifa ndakaaru gi la kilif ndakaaru ci wàllu vétérinaire bu nu fàttaliku aussi tamit ci ginnaaw tuuti 2013 moo fi toppoon lu mel noonu biir seeraas ku koy rey mu foto ko di ko topp mu génnee ko foofu ba nu yóbbu ko ci di ko conserver ci congélateur yi ci biti moo liggante ak gendarmerie ba jàpp kooku bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy def liggéeyam di ko xool ñu ne ci euh, borom euh, kii lañ ko yóbbu borom euh, xaj bi muy topp loolu ba topp kim woo kim ne ko moom la koy jox kooku amul xaj kooku amul xaj dañ ko topp ba jël kooku juge yóbbu ko juge ko tëj ko deux ans tëddul tëddul huit mois ñu gracier ko xëy na taw féexal la mu duggaat pour liggéey Seras. ñu ngi ci agent Seras la woon. ñu ngi ci ci kaw ba mu ba ñu dàqaat ko mu dem kooku. filière bii am seeraas mi ngi ci mais yoonu woowu ñu jaar ba di ko def am na ñu ko daan àndal kon ñoom ñi nga xam ne ñun doon leen a wóoru wax dëgg yàlla ba teg liggéey bu toll ni seen loxo muy directeur bi bu ñu demee ba état bi mën a joxe autorisation ñuy raay am di fas bu duggee foofu man nin may sàmbalee sama xar walla sama nag ba ma génnee ko nanu sàmm loolu ba mu bañ am fit

ndaxte du caagi ni rek xam nga coow bu amee dañ naan coow li am na waaye coow boo xam ne ne mën nga ko dut baaraam coow amatul te ñii lañuy ñuy wax nañ ko dut baaraam mbir nañ koy tënk te mbir boo ko tënkee ba xam ba foo jëm danga xam noo ko doxalee ñun ñoo jékki-jékki bëgg a def anarchie mais li xam ne yàgg nañ jaay mbaam te waa si sokaas jamonoy seeraas ba sokaas ñoom seen filière boobu maîtriser nañ ko dafa jékki-jékki am loxo bu ci dugg te war soon dugg wa illaa ni mu si duggee dafa ëpp donc loolu moo waral askan bi tey fu mu toll tey xaw a am benn njàqare ndaxte xam nga lépp loo gis dafa nekk modèle culturel ñu nekk ci réew moo xam ni ay jullit lépp dafa am nu mu si ñun xam nañ lu ñuy lekk te li ñu lekk dafa am nu koy reyee bañ na ko sax ba du yàpp mbaam bi effectivement pour dëggal li ñuy wax du yàpp mbaam mooy coow li abattage clandestin mooy coow li mais li nga xamné ni mbam génn am ñoo ne lek mbam tay li muy ni euh, Diop li muy wax dafa économique mais effectivement parce que l'activité économique li ko la production bi consommation bi échange bi bu une production bi mais consommation bi buñu consommer am échange te échange du am effectivement amna impact un impact négatif la bu nek gun fu tonni li nga xam ne tey Sénégal di baaxul ci moom te dañuy seetlu benn affaire foog ñu wax dëgg aussi xam nga réew kenn du ko kenn du ko euh, nëpp nëppal dañuy seetlu chinois lépp lu ñu laal coow bëri ci boo xoolee gerte gi ba chinois duggee ba léegi coow daf bëri mais lan ma war a nag léegi ñun suñu état ñu mën a nangu jàmbur ñëw dugg bëgg yàq suñu réew yàpp am na ñuy lekk yàpp mbaam Sénégal gi ñu am ñu lekk yàpp kaña mais am na am na lépp loo gis am na fi mais ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy lekk mu yem fa donc bu fekkente ne dañu toog ci marché bi am marché mbaam jaxasu fi te am ñoo xam ne ko lekk jeexe jaaxa boobu te loolu sax dafay dafay dem ba nekkaat ci leneen mooy li ñuy wax publicité mensongère parce que nit ki boo ñëwee taxaw na ko yàpp xar laa lay jaay alors que jaay ko yàpp xar yaa ngi ko jaay yàpp leneen mais yaa ngi ko wax loo xam ne safaan la te nit ki képp kuy jaay lépp looy jaay dafa am ñaari affaire yu tënk mooy l'aspect ak aspect bi nga xam ne mooy mooy aspect moral mooy li nga xam ne loo xam ne koy dindax jaay aspect moral moo si jiitu mooy sa diggantex yàlla nga xam ne lépp loo def xool ko suñu borom te leneen li aussi mooy li nga xam ne yow boo koy def xoolal après ban njariñ nga ci war a am boo xam ne ëllëg boo toogee si njaboot foo tëdd nelaw donc am na loo xam ne ñun ñu ngi koy bayal bayal xam nga leen dañ koy wax euh, Mansour te ko waxtaanee aussi boo jëlee code de l'hygiène li ñuy wax sànq code de l'hygiène dëggal na ko boo jëlee code de l'hygiène nga jël article 39 euh, bi dañuy wax ni lépp loo xam dañ koy jaay ci yàpp ñi ko war a jaay mooy boucherie dañ ko war a wax ñi koy jaay mooy ñi xam dañuy yore au moins euh, boo demee sokaas foofu dañ koy jaay fa dañ ko war mais tey boo génnee ci mbedd bi ñaata nit ngay gis ñu jël seen ñu jël seen cantine teg xamoo ban yàpp la te loolu boo xoolee boo jëlee euh, loi mais foofu xel tamit mën na fa dal bu fekkee ne tey jii euh, au niveau de de de la Sogas tey jii yàpp yi nga xam ne yëpp fa lay jógee déjà am na tempon bi tey ji boo gisee yàpp bi peut être mbedd mi mu am tampon yaakaar naa ne peut être foofu xanaa sama sama xalaat war naa mën a xel dal que ni lii dèjà bu jógee Sogas rek bu ko Sogas euh, nangoo kii nangoo nangoo accrédité mu dem ci sur le marché rek te c'est c'est de la bonne viande. waaw wax tampon parce que loolu te yaa ngi wax loo xam ni vétérinaire bi moo ko moo ko mos au moins xool na contrôle na ko xam nga loolu mooy aspect bi. bi leer te bu fekkee ne dañuy contrôler yàpp bi ba moom tampon bi loolu da doon yàpp bi c'est nekk na une viande saine. maanaam viande boo xam ne nekk na lu conforme pour la consommation mais bul fàtte dañu nekk ci réew moo xam ne le consommateur n'est pas bien éduqué te yaa ngi wax tampon mais am consommateur boo xam ne xamul la mooy tampon ci yàpp au contraire sax bu gisee tampon ci yàpp danaan danaan lii lan la man fekkee naa foo xam ni xar euh, xar boo ne ka tamponné am ko koy jënd gis tampon bi dafa delluwaat gannaaw parce que xamul couleur bi ci nekk couleur lan la donc loolu mooy l'éducation du consommateur mais dafa am loo xam aussi mooy li ñuy wax bu ñu anarchie nit ko xam nga consommateur il y a deux façons de consommateur il y a consommateur rationnel et le consommateur irrationnel le consommateur rationnel moy ki nga xam ne ni am am amam xamna ni limu am la lay jënd te xamna fan la koy jëndé xam consommateur bi bobu jafé jafé yi fekk ko ci moy d'habitude yooyu mooy consommateur yi nga xam ni dañuy dem dans les grandes surfaces mais am ben consommateur bo xam c'est un consommateur irrationnel moy ki xamni xam ne day jóg rek ne yàpp rek lay wut prix bu ko amee na léegi bu fekkente nag yow da nga bi fekk koo xam ne mi ngi ci wet gi nga gis ko nga gis am cantine teg fa nga ñëw mu jaay la yàpp kilo 600 alors que ku nekk xam nga ni dañ nekk ci réew moo xam ne ni maanaam euh, loxo yi matewu ko te ku nekk nag li nga am nga duggee marché donc réew moomu dañu amatul dañu amatul droit di bàyyi anarchie waaw mais tamit consommateur bi est-ce que tamit lu mu irrationnel irrationnel tay jii lo xamante ni ñu la doon jaay kilo bi 2000 et quelque ñu yewu tay dina ko jaay 600 nga ñew diko ko jënd est-ce que xel warul tay ci ben côté tamit. dal dut baram léegi nga xam ni que le consommateur parfois réew mi rek la ni ñu organiser réew mi des fois moo koy tax lu kan day japp ni lepp normal la xoola baax li mu lay wax. dañu ne Sénégal je prends juste un exemple dañu ne Sénégal bép dawlin bu fi nek dafa am enrichi dañ ko war en vitamine A. te diwlin bi fi nek war nañ xam litre bi mi ngi jar 1250 du ci wet ga amna ko amé diwlin bo xamné mi ngi jar 900 francs 700 francs di ko jënd donc loolu moy loolu moy réew bi ñu nek dañuy xol li nga xamné yow mom nga def pour dundé parce que fo nga lek fo nga naan bo nekkee ci réew mi dafa laaj encadrement bo xamné dafa nekk encadrement yu salaire motax li ñuy wax sank ba légui moy nañu wat ci li nga xamné mom lañu xam buñu jëk jékki ay mbam di fekk ci parce que ñom li ñu wax leer na mbaam yi dem nañ bané ñom ñu ngi am na te li ñuy wax dañ ko évaluer li ñuy wax dañ ko tek ci dañ ko tek fu wóor dem nañ sax ba wax ne ay 1500 lo xamni tay tey jot nañ ko jaay ci mbam lo xamni ne en fait jot nañ génn defe euh, ci mbirum ci ay mbaam. loolu xam naa dina ci dina ah, moom moo ci wara a ah. tontu sax parce que bu dee capacité par rapport ak li ñu wax lu ñu daan rey quotidiennement wala lu jëm ci mois bi buñ démé ba mu ex ci benn nombre bi. war nañoo mën a wax tamit est-ce que tamit bu dee consommation réellement bi nga xamante ni dañ ko déglu lu dul les parcs nationaux et est-ce que nombre boobu noonu est-ce que foofu tamit xel xawul tey foofu noonu ci lu ëpp loolu noonu. parce que bu ñu déggoo kàddu kàddu Abdoulaye dafa mel ni fuite bi tey bu koy wax chaîne de valeur bi foofu la jógee ci biir Sogas la rëccee.

parce que dafa am abattoir boo xam ne uniquement mbaam lay rey pour mala yi. boobu mi ngi ci biir Sogas. ba léegi ma nga fa te du fa jógee parce que état bee ko fa def parce que état bi bu créé abattoir pour reyukaay la dafa am abattoir bu ñuy rey xar ak béy moom la ñuy wax saalu xar ak béy mu am abattoir bu ñuy reyee nag ak gëléem muy saal bovin mu am beneen abattoir ci ginnaaw bu ñuy reyee mbaam xuux mbaam sëf. ak mbaam àll ak fas ak fas yooyu wax naa leen destination tuuti rek mu corriger Adrar voilà bul wax ne. Euh, euh, baal ma Doudou. non suma rakk la am naa. waaw baal ma dafa mel ni dafa am ku benn téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, sëñ bi noo tudd ak foo ñu woowee. laa tudd. nga bëggoon participer ci émission bi. dama ci bëggoon participer voilà jàmm. maa ngi leen di nuyu ñëpp di nuyu ñu seetaan ñëpp ci àddina mm, di rafetlu émission bi. boobaak léegi damay déglu ci affaire coow ak mbaay mi ñu ciy wax ci senegal mais maa ngi doog am chance pour mun a participer ci benn émission mais bu ñu seetloo ci àdduna ki ñu gën a yàpp mooy directeur Sokaas moo ñu gën a yàpp ñun ci àdduna ñun sénégalais yëpp bu ñu amee ku ñuy wax directeur Sokasu la parce que moo ñu yàpp weesuwul yàpp ñu weesuwul naan baam gis nañ ko mu ngi circulé ci dëkk bi ñu ngi jaay ndawal li kilo six cent nangam ak nangam te responsable liñ ko dégg jot a dégg yëpp mooy Sokas la reyee mbaam ya ñoom ñoo koy génnee xam nga li ma la wax fi mu ne dem nañu ba kër yi kenn ñemeetul lekk yàpp yàpp boo andi xale yi kër gi na la baa du yàpp mbaam wala nangam jaaxase nañ suñu xel te lépp responsable mooy directeur Sokas bi parce que depuis coole bi ba tey booy déglu moom moo fi njëkk a def déclaration boo xamante ni andi na jiixi ñi ngi jaay yàpp mbaam bi ci mbedd bi nit ñee ngi koy jaay kilo 600 mais nañu ànd ak moom woon ñu fan lañ koy jaay kilo 600 mais jaxase na xelu nit ñi fi mu ne sonn nañu kenn mënatul lekk yàpp di sax mënut dara maanaam ndawal daal kenn mënatu ko jënd te responsable bu ci seetee moom la. kon nañ ñu dimbali ngir yàlla directeur Sokaas buy wax wala na xam lu muy wax lu leer ndax ñi ngi ne 1500 mbaam rey nañu ko fa. mbaam yi fan ko jëlee fan la ko ñoom ñoo dem jëli mbaam rey ko tasaare ko ci dëkk bi ndax deru mbaam mais bu ñu andi nit ñi ay jaaka-jaaka yu problème. d'accord sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf sëñ bi. voilà euh, Doudou da nga am foo doon wax da nga fay corriger léegi Adra. Adra dama ne. Euh, saalu fas ak mbaam xam na ak mbaam euh, ak mbaam xuux ña fay liggéey di fa fees employé Sogas lañ leen di fay ay catholique nañu. parce que loolu moy sen domaine mais bu ñu confondre ñi rey ci jullit yi rey ci xari ak nagui ak salu porcin parce que saalu porcin ñëpp fay liggéey ay catholique nañu ñoy rey mbaam xuux yi ñooy rey mbaam sëf yi ñooy rey fas yi da leen di fay par weer ay employé nañu comme ni mu amé employé ci yeneen secteur yépp bu ñu wax né ay nit nañu jëli pour ñu koy rey beneen bi Doudou Ah, Balla maa ngi jégalu de dafa mel ni am na ku beneen téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi noo tudd ak foo ñu woowee. man maa ngi dëkk ah, participer ci émission bi. dama bëggoon participer ci émission bi. waaw da bi da nga déglu bi eh, sëñ dañuy baal nga wàññi sa télé nga déglu si téléphone bi. waaw oh, man daal li may ñaan mooy état bi daal dafa war a fermer lépp luy Dakar mbaam ba ñu tëbee dugg pour le moment ba ñu def affaire nu mu demee. chinois di ko jox ay gaynde ou bien ay chinois di ko jënd nañ fermer dakaar dakaar moom pour le moment nañ ko fermer complètement ba mbaam du fi dugg. ku gis mbaam ci yow mu mel ni yàmba gis ci yow jàpp la teg la daal yoo xam ne boo lekk du doo fenn mbaam ndax mbaam dafa wut si Dakar dara liggéey yu fi def fi dara benn na jeexi jara ci réew mi ci lekk ndawal ndax mbaam sokaas googu loo xam ne na lañ koy jaay ak i gaynde lañ koy jox pour le moment daal li may ñaan mooy état bi na ferme Dakar ne bu mbaam dugg ci pour le moment arrêté naa mbaam yëpp ça fait que ñu seet bi nan la demee ak pourquoi mba ñu ngi jaay mbaam wasalaam. voilà donc euh, euh, li ma ci gën a leeral encore mooy mbaam yi bi ñu ñëwee Sogas la ñu commencé rey mbaam yi euh, dégg naa ku ne fii que chinois yi du ñu dem ci luuma yi di jënd mbaam. yàlla na ko yàlla yërëm alaaji mbaalo géy yaag moom yéen a nekk ci daral bi moo gañe woon marché mbaami gaynde yi ba bi muy génn àddina bi ñoom Etienne génne àddina la jël marché boobu tey keneen mu ko jël mais fu mu ko doon rey sogaas la ko doon rey rey ko ci mbedd mi donc kon liñ leen di wax loolu dafa mës a am bon donc dama ne leen phénomène bi am mooy sogaas les chinois yi ñoo contacté pour ñu rey leen seen i mbaam mais bi ñu gisee affaire bi li muy jur ñun ñoo njëkk yuuxu en tant que des bouchers ak chevillards ne lii nañ ko dindi directeur général Sogas moom moo bind lettre parce que émission bi sax daf ma préparé ma ko nii quoi moo bind lettre ministre bi ne ko kat affaire bi mu ngi bëgg a doole sama kër parce que état bi li mu ko chargé mooy gérer abattoir bi Nous avons rey nañ abattoir l'autre abattoir nit ñi confondre abattoir espace bu mu abattoir vous kuy rey demal vous espace bu légal. voilà espace bu légal parce que l'État bi mener la politique de sécurité alimentaire li nit ñi bon donc bi mu commencé mu xam parce que ku ne ko bon bi mu gisee ne affaire bi ëpp na doole moom moom ci boppam moom moo saisir ministre bi bi mu saisir ministre bi ministre bi tontu ko par lettre ne ko arrêté ko mais bu ko ministre bi bindul woon ne ko arrêté ko du ko arrêté xam nga ni da ngay wax dëgg ko at yàlla tax donc ku wax ne moom moo jënd mbaam wala moo lii mais donc du kon du am audace dem naan day ministre arrêté ma lii titam bi ñu ko arrêté man li may wax yàlla rek moomu tim kenn tim ku ma dégg xam na ma moom ci boppam moo woo comment dirais je gendarmerie yi doon def euh, clandestin mu ni génne leen mbaam yi ci biti ñu génne mbaam yi yóbbu leen ca raay ba dëgg la wala dëgg Pape ah, ci raay ba mbaam mën na junni. donc moom bu doon rey junni mbaam yooyu muy génne bu doon déglu xaalis avant tout danaa dama koy rey ba pare bu fi mbaam dugut xam nga dafa am loo xam ne nit xel moo koy nangu ak lu xel du nangu nit ki doo ko bañ wala nga koy déclarer guerre ki doo wax dëgg.

Soga signé ak parc je euh, euh, les Ziguinchor ak Forêt Bandia amuñu ay chambre froide yu ñu def yàpp bi pour jox ko rabu alli ñu ni leen du génn nañ koy jël ci par contre goutte ba mu jeex loolu yenn na maana wala yenwul maana pour bañ mu dugg ci biir population mais donc euh, nit ki da koy waxal li nekk. d'accord barki démb. du du non une minute rek barki ah, démb. Uh-huh. mais rey nañu juróom fukki mbaam ci biir nguur ñu jàpp leen defaree na leen ni leen Dakar. dañ ko rey biir Sogas dañ na leen il faut que ñu gëm yàlla tuuti dañ leen dafa am phénomène bu am bon heureusement que euh, représentant consommateur yi wax na ko que chinois yi lu nu dugg mu ëpp mais bala ngeen wax mbaam kan moo dox ci mbeddam léegi gis xaj lekk leen xaj yëpp kan moo dox ci mbeddam gis xaj fa leen leen lekkee fii ci Sénégal fii ci Sénégal am yow même sa mbedd koñ da nga daa gis xaj bu lay dàq kenn gisul xaj léegi ci mbedd xale jël na xaj yëpp jaay ko chinois yi lekk nañ ko voilà te yàpp bi ñu wax dañ koy exporté du ñu ko exporté dañ ko dugalaat ci marché bi beneen leeral ma leeral ko eh. am na benn xale comme ki Adraan wax Sogas moo ko jàpp muy jaay ci marché Sabanel benn restauratrice yàpp mbaam benn restauratrice kuy def restaurant du ci marché bi dafa am maam. xool bi waaw may ñu dafa am abonnement du ko yóbbul yàpp xool dama ne la kay waxuñu la marché bi moo koy jaay. dama ne la restauratrice mooy. kuy mm-hmm. jaay kuy togg. man li ma wax lu leer la restauratrice nañ ko jàppee. jàppee wu ñu ko ci taabal yi. xam nga boucher. amul benn boucher buy naan sàngara booy jox maam mu koy jaay. ay jullit nañu. tu vois mm-hmm. mais liñ leen wax lu leer la te loolu président directeur général Sogas. Mm-hmm. ma nekk foofu moo ko jàpp yóbbu ko tribunal ñu tëj ko. mais kon kooku dina favoriser maam. ak mission bi ñu ko jox xam xam nga dëgg bu nga dañ ne ak abattoir yi ñun ñoo ko moom suñu alal la bu defoon lu jaaduwul balaa suba conseil d'administration bi dindi ko mu gaaw parce que ñun ñooy administrateurs yi ñun ñoo nekk ci kaw di mën a politique euh, bi ñuy doxalee abattoir yi il faut mu leer ci bopp nit ñi tu boo gisee état bi ñu impliqué ci acteurs yi pour abattoir bi ñu jël seen i outil téye ko di ci liggéey mais wax bi du ci biir ab